li may mu wax di ko lancé appel monsieur le président de la république di Macky Sall euh, ñun làmb la am mooy suñ cosaan képp ku mës ñëw ci réew mi dañ ñu ko fonkale mm-hmm. nga la nga ñu fonk nga fonkale ñu aussi tamit suñu làmb mm-hmm. suñu sport bi nga moom lañu am mm-hmm. moom la sénégalais yi di dindee seen stress moom la sénégalais yi di seetaan seen xool di neex moom la sénégalais yi di ko dund ñu koy yëg dëgg la problème yu bëri ñu koy fàtte kon monsieur que le président na nga fexe gën a fonkaat làmb ji te teer làmb ji. Mm-hmm. parce que aussi tamit il est temps aussi nga jàppale làmb. Mm-hmm. soutenir làmb. Mm-hmm. mooy sa njëriñ mooy njëriñu Sénégal. dëgg làmb ji bu ñu ko tëjee ba léegi yàgg na. gisoo benn mbër bi kaas. naan leen nii naa nangam nangam mbëri sonn la kenn. parce que dañoo am ngor am fulla am jom am personnalité. parce que wéet gore wéetalu gore.